charrette yi nekk ci yoon bi ba pare nit ñi nga xamante ne dañu saay-saay tamit nekk ci mbedd mi nee naa la xale boo àndeek moom danga koy jiital ba pare téye ci loxoom waaye ànd ak xale bàyyi ko ca ginnaaw yow nga jiitu du dox xamoo sa xale bi lan moo ko mën a arrivé te loolu dama ko gis à chaque fois dama koy gis nit yi di def loolu nee naa la xale yi ñooy màgg daal di yorum reen kon nañu toppatoo xale yi xale bu fekkee day jàngi école jàppal ci loxoom yóbbu ko ba ca école ba nga dugal ko ba mu dugg ba nga xamante ne ni dugg na ci biir nga daal di doog a wañeeku waaye am na ñoo xam ne dañu tayal dañuy tëdd ci seen lal yi di nelaw gis benn nit rek daal di koy ne yóbbaaleel ma sama doom école mu jàngi xam nga loolu ci tayal la bokk nee naa la xale boo ko yoree danga koy toppatoo bu fekkee day jàngi téyel ci loxoom nga yóbbu ko ba ca école ba ba mu dugg ba nga xamante ne ni dugg na nga doog a retourné ndax jamono bi léegi neexatul ñiy sàcc xale yaa ngi fi ñi nga xamante ne dañuy torturer xale yi ñu ngi fi te oto yi dañu bëri xale xamul dara nee naa la xale loo ko waxul xamu ko xale day jéggi tali te du xool parce que xale la xamul dara amagul expérience kon mag ñi nga xamante ne ñoo nekk xale yi di leen wommat di leen tette ngir yàlla li lay war a sol nañu nekk rek ay mag yu am expérience ci ay mag yoo xamante ne rek mun nañu yor xale rek mun nañu leen tette waaye da gis koo xam ne day ànd ak doomam daa di bàyyi doom ja ca ginnaaw rek ah di kandag kandag yi rek di dem du xool sa xale bi lan moo ko mën a arrivé te nee naa la xale yi ñooy màgg daal di yorum réew te xale xamul dara li nga xamante ne moom lay gis rek loolu lay nekk bu màggee kon xale boo ko yoree da koy toppatoo di ko surveiller di ko xool di xool li muy def buy dem école nga bañ a tayal waaye am na ñoo xamante ne surtout seddaay bii di ñëw dañuy tayal a tayel ba nga xamante ne dañuy bàyyi seen doom rek muy jàngi moom kese wala ñu boole ko ak kenn naan ko yóbbaaleel ma école xale bu fekkee day jàngi dangay jël passion bu mat sëkk di ko toppatoo di ko yóbbu école di xool li muy lekk ak li muy naan di ko jox goûter bu doy sëkk waaye am na ñoo xamante ne sax ñu jox seen doom lu mot duñ ko jox ndox mu naan duñ ko jox goûter ñu ko jox dara dañ koy bàyyi rek mu daal di dem école nee naa la veillé leen ci xale yi parce que école ubbi na tey sama vidéo ci xale yi la doon wax maa ngi jéggalu nag bu fekkee kàddu yi dafa ñaaw maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñoo may seetaan I love you so much thank you